non mais foofu la koy foofu ko jëlee si père mbër yi bu ñu jàngoon làmb du développé soo leen soo leen ma permettre ñu ñu delloo soit Mohamed s'il vous plaît xam ngeen li ngeen di sonn waaw d'accord nañu dégloonte s'il vous plaît Mohamed nga coupé nit ta sans protection dret di tuuru nga ciy encaissé yow di kontaan combat bi tant que dret tuuru doo kontaan tant que donc violence boobu moo moo lay amul s'il vous plaît bu fekkee may ngeen ma ko s'il vous plaît zoom Mohamed Mohamed dama la koy ñaan sànq dafa am ñoo ko laaj waaw ne ma euh, dama ne ko bu mbër mbër yi buñ jàngoon mhm. lamb du développé mu ne ma lu tax ma ne ko yéen li ngeen di daj ci lamb mhm. fayuñu leen ko xam nga li may wax. maa ngi koy fay nañ leen. déedéet ñu lamba ngi dox lamba ngi dox. ci ñenn ñi békaay loolu la ñu wax li ak li ñuy gis sur. waaw yooyu yëpp ñu leen ko dañuy xëy fajar di entraîné. d' accord di entraîné. fu ngeen mën a aaree seen bopp yéen a nga fa. mbokk yi leen di seet si ñii yaakaar ci yéen. Ah. ngeen taxaw ah, ci lamb yow ngay bailleur de fonds yow miy toog. waaw boo fayee ko ñaataay dem sa kër ñaata ngay joxe. ok moom nag ma ko ñu dellu si waat je rappelle que ñu boole ñu euh, ñu en général ay ay jeunes xam ne dañu misé wu jël seen avenir ci lamb ji gis nañu sport de jeune la Mohamed ak Bekaay euh, li ñuy xëccoo am na solo mais nañ ci dellu si waat tout à l'heure alors euh, dafa am lu muy yàq ci éducation père Bekaay parce que léegi on se rappelle xale yu ndaw yi nee nañ daan fooyu njëkk ba bu ñu wàccee école bal bi lañ daan xëccoo pour mën a dem terrain football yi mais tey dafa dox ba gars yi xale yu ndaw yi lamb la ñuy fooyee bu ñu wàccee euh, am na lu muy yàq ci éducation da ngeen di comprendre benn affaire affaire bi phénomène la mm-hmm. dafa xew cycle la dafa xew cycle la bu jëkkoon football lan xamoon football mais làmb amoon na mais làmb demeewul woon nii mais dafa ay façon nit di dugg ci làmb doon ay idole nit ñi bëgg leen ci ni ñuy bëree li ñuy comporté woo am lu mu indi lu bees loolu moo tax nit ñi dem ba bëgg ba pare nag média yi ñëw rajo bu ubbi bu amul émission làmb du dox télé bu ubbi bu amul émission làmb du dox yéen sax yéen a ngi juróomi émission làmb ngeen am ci seen tele yéen nag pour pour doxal. waaye <laughs> ko yéen nag. làmb pour lan parce que dafa am ñu koy seetaan bu amul woon ñu koy seetaan du ngeen ko def ñan ñoo koy seetaan. xale yi ci boobu mu bëri xam nga yaa koy laal dafa am solo euh, am na lu muy yàq de est-ce xam nga yéen a ci rendre compte waaw am na mais dama lay déglu ma ma wax la am na lu ma wax démb déglu gars yi am na lu ma wax démb ci télé am na lu ma wax démb non non xaalis bi dafa xaalis bi ñu koy gagné matuñu 15 matuñu loolu lay yàq ay boo yu waroon ay xale yu waroon a am métier am na benn booy da ci damm su bëri la ñuy teel a bàyyi a bàyyi jàng dem dugg ci lamb te lamb dafa am ñu war a doon mbër ak ñu warul doon mbër Bécaye naa ne ci am part bu rëy part bu part bu yaatu parce que cer cer commencé xaw ma quatorze am na booy yoo xam ne dof loo nga leen taxamoo ko adduna loolu la. mais seen bos dafa fës maanaam yéen yéen part bi ngeen ci am mooy part bi ngeen ci ëpp ci seen discours mooy valoriser lamb ji euh, fësal ko ni lu baax la joxe ci ay bonne leçon. amul lu baax yàlla amul benn émission bu ngeen di toog di critiquer d'habitude waaw waaw teraanga ci nekk moo tax. loolu la de. Ah, y a des non ci lamb ah, ah, mais dañ seen teraanga moo tax ngeen koy valoriser bay. déedéet déedéet déedéet du question am ci intérêt moo tax. yow rat bi ngay def bi am nga ci intérêt kii li muy def journal ak revue de presse chaque jour ma déglu boo ci amuloon intérêt doo ko def boo sañoon RP bi day daal di mais quand même du tax ngay valoriser lenn li nga xam ne eh, baaxul ah am na lu ci baax am na lu ci bon revue de presse xam nga ne am na yenn revue de presse yoo xam ne baaxul teguñu ko fenn waaw noonu la mel noonu la mel moo lamb bi am na ñoo xam ne correct nañu mais damay jox exemple ah moomee ndaw Tyson mais c'est un lutteur exemplaire. Mm-hmm. non bari na ci. Ah, am na ay exemplaires benn rek laa lay jox man dama fi ne di lim waa ñu ku lim juum. Mm-hmm. Mm-hmm. benn laa lay jox daw Ndao Tyson c'est un lutteur exemplaire. do noo ñëw ci moom nga critiqué ko ci dara lu jëm ci luy yàq. benn. mais am na ñoo xam ne dafa xaw a diis nag. Eh non non loolu yëpp sama yoon newu ci bu diisee bu oyofee. c'est-à-dire dafa mel ne ku yanu aaduma mais daal de toute façon am na lu positif. lu mu indi ci làmb Mouhamed ci ay démarches am. waaw mais xoolal man am na lu positif. yow journaliste la xam nga ne décroché meneen mbër interview moo gën a yomb décroché Tyson. ci yow ci yow. Euh, waa match man waa man bu ma ko soxla am. waaw bokkul mooy li ma la wax. waaw d'accord yéenu neen la. d'accord ñu del ñu del est-ce que mbës yéen a ngi rendre compte ci li ngeen di yàq ci dëkk bi ci làmb yàq kon li ngeen di yàq ci dëkk bi en général est-ce que yéen a ngi ci wax la benn da éducation wu xale yi par exemple mais yi ñuy entraîné nag a ñun dañu def concert ci ay foyer école yi. foyer la comme foyer foyer école yi ci mbedd yi waaw moom ci école yi la débuté. bàyyi ko mais heure yi heure yi école yi nga école yi ñooy feetu invité ñu. mais école yi rek di fa répété. yéen moom yéen def ngeen ko fenn dañoo ñëwagul ci yéen rek. non d' accord dinaa des bàyyi leen moom des. jàng si école. tontu woo ma de. est ce que yéen a ngi naan ci li ngeen di yàq waaw ci dëkk bi. li làmb ji yàq ci réew mi. man ngeen ci kon lan ak la yàmb yàq na éducation wu xale yi xale yaru xale yi par exemple xale yu bari dañuy roy ci yéen ci ni ñuy seen ay comportement ci ni ñuy waxee waaw benn mooy seen moroom yu liggéey yi ngi leen di def sëf leen ko ah. day def da leen di topp ba ba ñu màgget liggéey ya mais mbës yi mu amee combat yéen xam ngeen li ngeen di fekkante la bés yow dafa mel ni mënoon defar sa gars yi combat maam nga maam ak yow combat man kay bëri maag yow c'est kenn dama la <laughs> exemple rek exemple lañ joxe combat ma la yow nga may liggéey ma lay liggéey waaw waaw léegi loo bëgg a foofu après liggéey bi am nu muy demee day topp waa ji ba yàq ko kan lay topp mais attends Khadim mais mais mais moo taxaw am na ko tax non man attends journaliste biir bi biir Mohamed waaw mu ne ñu ne ko ndax ndax mas nga xool nit mu ne waaw ñu ne kan mu ne Khadim Ndiaye léegi da nga bëgg wax loolu moo topp Khadim Ndiaye non déedéet wax ma ko dama la koy wax yaa ko wax de mais xoolal ma loolu su ma ko doon wax dama la koy wax. eh boy. xoolal ma loolu eh, s'il vous plaît eh, loolu day am ci presse. day ci presse. presse presse bi nii day am ci presse. non non booy xam man dama bëgg a wax. benn exemple ah? ba exemple laa lay jox. ñaata ah, mbir Lamine Samba. moo met. ay ah, moo gënde. moo nidol moo maa ngi lay ziare. ak sa yeneen gars yi. waaw ñoom ñëpp ñu ngi lay ziare. ñu leen wax ñu mbër maa ngi ziare doom bi fekk fee boo fa déggee jàmbur maa ngi moo ne la waaw moo mettre lay ziare <laughs> moo moo yoon bi ba ñëpp ñeme mais sama gars yi maa ngi leen di ziare na la naka tey sant rek grand du ma la gis damay kontaan mais yéen lu ngeen di waxtaane lu xew waaw man ma ziare man cest temps damay ñëw fii ci armère yi waaw ñaanal néew yi c'est important bi ma ñëw bi ma gisee Bécaye rek dama ne c'est am waaw que am na ci ay nit yoo xam ni euh, boo iñaanul mhm. ne yàlla ak diw dëgg la <laughs> c'est sérieux jeté ko ay fleur mais nee naa non non ñeme wax naa ko <laughs> wax naa ko ci rajoom FM Sénégal mhm. ma ne bi àll bi yaatoo kenn ñemewul mhm. moo xuus jàll waaye nag dañu dem ba léegi ak mondialisation bi ak concurrence bi malgré c'est une concurrence très saine ah ñenn ñi nag ñëw nañu nag rek mu seena waaw non ñenn ñenn ñi ñëw nañu moo tax ma ma gis jotaay ma xam ne làmb la lan mhm. ngeen di waxtaane c'est très important euh, li ñuy waxtaane bokk na ci euh, nee nañ li ñu yàq ci dëkk bi dafa bari ñan làmb ji yow ban analyse nga def ci làmb li ñu yàq ci la ci dëkk bi nee nañu même ñun ñi ci lanu li ngeen yàq bari na ñu bàyyi ñu laajal ko ah, non dama ko koy wax parce que jëw bi <laughs> li ngeen yàq bari na ci éducation wu xale yi ci communication bi ngeen di def ci rajo yeeg ci télé yi ni ngeen di valoriser làmb ji te baaxul ci askanu Sénégal avenir avenir u làmb ni ko rappelé waxee Sénégal nekkul ci ngemb c'est que non man bëgguma ñu may ñu may c'est-à-dire band ba rek quoi dama bëgg ñu comme dañu ne toog toog teg toog toog toog teg waaw ñu wax ma man lu ma mën a dégg parce que li fi teg Bécaye du ay caaxaan li fi teg mbës du ay caaxaan li nga mën a dégg mooy waaw lan moo xew a waral lii Sénégal nekkul ci ngemb làmb ji bu buñ ko jël teg ko au devant de la scène ne moo yor suñu avenir surtout ndaw ñi noo jàngatee loolu lan moo waral làmb nekk fii mu nekk tey. laajat naa duñ la laaj nañuy laaj dañuy mën a toog question